waaw jàngat biñ ñu ciy def mooy président Macky Sall wane na ne njiit la waneeti na ko njiit la gu mat njiit njiit la bu bëgg réewam njiit la bu fonk doomu aadama bu fonk sénégalais fonk kilifa diine yi ne ci réew mi président Macky Sall wane nañu yit ne politique kat du wax rek sànni mooy dangay sàmmoon teg sa kàddu tey wanewaat nañu ko yàgg nañu ko woon waaye bii dafa gën a neex dafa gën a dal ndax bi nga xamee ni kuje gi mënuñ koo attaqué ci ay bilan dañu agité ne dañ koy tuumaal ne dafa bëgg a def troisième mandat boo ko seetloo 2019 bañ ko falaatee ba léegi kuje gi waxam yépp mooy Macky Sall dafa bëgg def troisième mandat dégg ñenn sax naan jàmm gën troisième mandat ñiy créé F24 di wax et cetera waaye ba bi yegsee ba cëppaa ndaw ga moom mu ne woon du ci wax tànk wax bi jotul ndax nag boo nekkee njiitu réew doo nangu ñi lay ñi bëgg jël réew mi ci yow ñi ko bëgg jël ci say loxo nekk ci kuje gi doo nangu ñoom ñu déterminer sa horloge kañ ngay wax ak kañ nga dul wax moom dafa ne woon bu wax jotee dina wax wax jot na wax na te gis naa ne àdduna wërngël képp rafetlu nañu ay kàddoom ba ci fii ci Sénégal am na ñoo xam ne ànduñoo moom ci politique dañu rafetloo ay kàddoom noonu la njiit di doxale te xam naa ne kilifa diine yi am ci réew mi naam seen kàddu du jóg ci lu mel nii waaye rafetlu nañ taxawaayam rafetlu nañu ay kàddoom te loolu dafa baax ci politique xam nga nit da ngay am honneur da am esprit de responsabilité man kenn mësuma dégg ma prononcé wu ci affaire troisième candidature sama parti mosu ci wax man mii mosuma ci wax parce que dama jàpp ne bi app bi jotee bu app bi jotee président Macky Sall mi ma xam xam ni mu amee attachement am ci ci jom di nitu nit ku am courage ku am fulla aussi ak fayda man dama xam ne bu décision jotee dina jël décision bi gën a baax ci réew mi tey décision bi mu jël ñëpp saluer ko dafa wane ne moo gën a baax ci réew mi li ci nag mooy njaboot gi nga xam ne moom la yor muy ñun ñii ànd ak moom ak ñu mel ni ñun nañu gën a takku laxasaayu ndax defal nañu lu rëy man sama kilifa ga maître Mbaye Jacques dafa doon wax naan booy boot nit ba tànkam di laal suuf mu war a mën a wàcc dox président Macky Sall boot na Benno Bokk Yaakaar ba suñuy tànk mu ngi laal suuf kon dafa jaadu nag ñu jóg dox dox bi nag dañ koy continuer di ko dénk suñuy loxo pour mu continuer di tette coalition bi di ñu jox yoon di ñu joxoñ yoon yoon woowu mu ñu joxal ne ñu fexe ay la yéwén ba kenn ku nekk ci ñun nga fàtte sa bopp nga jiital réew mi ndax jiital réew mi mooy fexe ba Benno Bokk Yaakaar conserver pouvoir bi conserver pouvoir bi pour jëf pas pour ay post pas pour teranga mais conserver pouvoir pour jëf pour yeggali li nga xam ne moom la fi président Macky Sall doon def président Macky Sall yàgg naa wax ne moom li Napoléon doon wax rek mooy am réew ay combat moo koy téye ay débat moo koy per moom combat yi mu mën pour réew mi ñëpp gis nañ ko combat la yoo xam ne ci gëm-gëmam ci jaar-jaaram ba muy ndaw ba léegi dafa jël boppam gëm ne Sénégal dañu war a yemale yemale googu moo tax muy dugal fu nekk ci Sénégal fépp fu nit nekk fi sentir nga ne état mu ngi sa wet. kon loolu bu ñu amee njiit bu mel noonu boo xam ne téye na réew mi fukki at ak ñaar téye ko téyin boo xam ne it coow yi am ci suñu suñu sous région yi maanaam attaque terroriste yi fii am suñu sécurité réew daf ko téye daf ko téye def ci euh, alal ju am solo permettre suñuy force de défense et de sécurité. Euh, ñu mën a sécuriser réew mi tabax ay cantonnement fépp ci Sénégal yokk seen doole tey boo xoolee police am programme de modernisation 2025 armée nationale ak gendarmerie am la même chose donc monter en puissance force de défense et de sécurité ci cadre aar réew mi dafa nekk beneen beneen bilan bu am solo boo xam ne donc su ñaree toog fii di wax li fi président Macky Sall def du fi jóge li am mooy dinañu laxasaayu ñun waa Benno nañu waxtaan ci suñu biir te xam ne nag tànn boo def tànn boo gis dafa jafeñ moom président Macky Sall lu mu doon wax naan remaniement ak investiture laa gën a mooy les moments les plus difficile yu may dund en tant que chef de la coalition parce que dafa metti waaye ñun on lui réitère notre confiance confiance bi ñu amoon ci moom bi mu yoree réew mi nga xam ne mooy nommé moom la doon nommé la même confiance lañ continuer di ko jox pour que subaak si biir mu woote coalition bi ñu xool ban schéma moo gën a baax dina nag euh, wax foofu ne képp ku ñu nar a jël ëllëg na jàpp ne doo Macky Sall képp ku ñu nar a jël ëllëg na nga xam ne dayo bi Macky Sall amoon ci kaw coalition bi doo ko am parce que moom dañ koy invité ko mu continuer di lii de di jiite coalition bi et que dinañ tànn président la dinañ tànn kenn mu nekk suñu candidat kooku bu nekkee président la république aussi mais dafa war a jël premier ministre dafa war a jël président dañu war a tànn ay président de l'assemblée bu ñu gagné ay élection législative loolu lépp laa wax ne dañ ko war a waxtaanee ak moom moom ci boppam mu jiite waxtaan bi ñu ànd ci suba ak si biir ñu fàtte suñuy bopp jiital intérêt mi fexe ba coalition bi amandam ci échéance yi ñu jëm jàpp naa ne loolu mooy mbir mi parce que bu ñuy politique aussi euh, du ñu bàyyi ay aventurier ay ñoo xam ne xamuñu fan lañ jëm amuñu benn ambition ba léegi déggule la ñu wax leen ay ambition pour réew mi avantage nag bi président Macky Sall discours am bi li mu indi ma jeexale ci loolu mooy li naroon polier débat bi tey faxas na ko parce que ku jégi lu ñu doon wax rek troisième mandat troisième mandat troisième mandat mais troisième mandat léegi nekkatul léegi il faut que ku gi ñëw wax ñu bu fekkee ne dafa bëgg a jël réew mi ci suñu loxo lan la ci nar a def parce que ñun xam nañ li ñu jot a def te xam nañ li ñu bëgg a def encore waaye ñoom nañ ñu wax lan lañ bëgg def bu boobaa démocratie day retrouver ses lettres de noblesse parce que démocratie confrontation ci ay wàllu xalaat la wàllu gis-gis yu wuute mais du ay affaire wax ju ñaaw du affaire saaga du affaire tamante dëmm démocratie mooy fii laa bëgg yóbbu réew mi nga dema déet man gisewuma ko nii nii laa ko gisee ñu waxtaan ñu débat population yi arbitrer li gën a dal seen xel waaye nag il faut qu'on sorte ce pays de cette spirale de violence verbale de violence physique boo xam ne amul place fii ci Sénégal donc je pense que tey président Macky Sall mënuñ lu dul sant ko gërëm ko feddali ko suñu kóllëre suñu kóolute ba pare ñaanal ko yàlla fi mu jëm